jëf ya amoon na ci sesaare nit ku tudd korney nekk njiitu xare mu bokk ci mbooloom xare mi ñuy wax mu itali moom nag ku farlu woon ci yàlla la te ragal ko moom ak waa këram gépp muy sarax ñu bari ci bànni israyel tey saxoo ci ñaan ci yàlla am bés ci tisbaar nag mu am peeñu gis bu leer malaakam yàlla feeñu ko né ko korney noonu korney ne ko jàkk daldi tiit ne ko kilifa gi lu mu doon malaaka ma ne ko say ñaan ak say sarax yéeg na fa kanam yàlla te nangul na la yónni léegi nag ay nit ci dëkku yoppe ñu woo ku tudd Simon mi ñu dàkkantele piyeer mu nga dal fa simoŋ wullikat bi këram nekk ci wetu géej bi malaaka mi doon wax ak moom demee korney woo ñaar ci ay surgaam ak benn xarekat bu farlu ci yàlla ci ñi koy toppatoo mu nettali leen lépp yebal leen yoppe ca ëllëg sa ba ñuy jaar ca yoon wa ba jub dëkk ba piyeer yéeg ca kaw taax ma ci dëgg bëccëg ngir ñaan ci yàlla noonu xiif dab ko fa mu bëgg a lekk waaye bi ñu koy toggal yàlla feeñu ko mu xool asamaan ubbeeku gis lu mel ni sér bu mag bu ñu téye ci ñeenti laaf ya yoor ko mu jëm suuf boroom ñeenti tànk yépp ñu nga ca ak yi raam ci suuf ak picc asamaan te baat ne ko jógal piyeer rey te lekk waaye piyeer tontu ko mukk borom bi ndaxte musuma lekk dara lu daganul mbaalu araam waaye baat bi wax ak moom ñaareelu yoon ne ko lu yàlla sellal bu ko araamal ñu def ko nag ba muy ñetti yoon ba noppi ñu ne cas sër ba jëme asamaan bi loolu amee piyeer jaaxle lool ci lu miy tekki fekk booba nit ñi korney yebal laajte woon nañu kër simoŋ ba agsi ci bunt bi ñu woote nag naan simoŋ mi ñuy dàkkantele piyeer ndax fii la dëkk bi piyeer di rabal xelam ci peeñu ma xel mi ne ko ñetti nit a ngi nii di la wut jógal nga wàcc te ànd ak ñoom bul werante ndaxte maa leen yebal piyeer wàcc nag ne nit ñi maa ngi nii man mi ngeen di wut lu doon seeni tànk ñu tontu ko korney njiitu xare ba nit ku jubla te ragal yàlla ba am seede su rafet ci bànni israyil gépp malaaka mu sell nag sant na ko mu woolu la ci këram te déglu li ngay wax ci kaw loolu piyeer dugal leen dalal leen bi bët setee piyeer jóg dem ak ñoom ànd ak ñenn ci mbokk yi dëkk yoppe te bés ba ca topp mu dikk sesaare fekk korney woo na këram ay mbokkam ak xaritam yi ko gën a jige di xar piyeer bi piyeer duggee nag korney daje ak moom daanu ciy tànkam sargal ko waaye piyeer yëkkati ko ne jógal man nit nit rekk laa noonu muy waxtaan ak moom dugg si fekk fa ndajeem nit ñu bari mu ne leen xam ngeen ni aaye nañu yawut mu jaxasoo ak ñi mu bokkalul xeet mbaa mu dugg ci këram waaye yàlla won na ma ne waruma ne kenn setul mbaa araam na loola tax bi ngeen ma wooloo ñëw naa ci lu àndul ak werante maa ngi leen di laaj nag lu ngeen may doye ci kaw loolu korney tontu ne ñetti fanaa ngi nii may ñaan ci sama biir kër ci waxtu wii maanaam tisbaar ci saa si ku sol yére yuy melax taxaw ci sama kanam mu ne ma korney sa ñaan nangu na te say sarax àgg nañu fa kanam yàlla yónneel nag ci yoppe woolu simon mi ñu dàkkantele piyeer mu ngi dal ci kër simon mi wullikat ca wetu géej ga yónnee naa nag ci ni mu gën a gaawe woolu la te maa ngi lay sant ci li nga ñëw léegi nag ñun ñépp nu ngi fii ci kanamu yàlla ngir déglu lépp li la borom bi sant noonu Pierre jël kàddu ga ne leen ci dëgg gis naa ne yàlla du gënale waaye ci xeet yépp ku ko ragal tey def lu jub moom lay nangu yónnee na kàddoom bànni Israyel di leen xebaar jàmm jaalale ko ci yéesu Kirist mii borom lépp xam ngeen li xewoon ci réewu yawut yépp li ko tàmbalee ci diiwaanu galile topp ci waareeb yaxya mu naan nit ñi mu soob leen ci ndox xam ngeen ni yàlla fal na yéesu nasaret sol ko xel mu sell mi ak kàttan muy wër di def lu baax ak di faj ñépp ñi nekkoon ci kilifteefu seytaane ndaxte yàlla àndan na ak moom seede nañu li mu def lépp ci biir réewu yawut ya ak moo moona rey nañu ko ci wekku ko ci bant waaye yàlla dekkal na ko ci ñetteelu fan ba te biral ko waxuma xeet wépp waaye seede yi yàlla tànn lu jiitu maanaam ñun ñi daan lekk di naan ak moom gannaaw ndekkiteem te yeesu sant nañu ñu yëgal xeet wa di seede ne moom la yàlla jagleel àtteeb ñiy dund ak ñi dee yonent yépp nañu ko ne ku ko gëm yàlla dina la baal say ci turam bi piyeer di wax loolu xel mu sell mi wàcc ci kaw ñépp ñiy déglu kàddu ga yawut yi gëm yépp nag ñi ànd ak piyeer daldi waaru ci li yàlla tuur xel mu sell mi mu maye ci ñi dul yawut itam ndaxte dégg nañu leen ñuy wax yeneen làkk ak di màggal yàlla booba piyeer daldi wax ne ñi jot xel mi sell mi ni nun ndax mënees na leen a bañ a sóob ci ndox noonu mu santaane ñu soob leen ci ndox ci turu yéesu kirist ginnaaw loolu ñu ñaan ko mu toog ci ñoom ay fan